ne que suñ Pape dañuy génn nag léegi ci wàllu wayeek album beeg yëpp mm. euh, ñëw ci li nga xam ne moom mooy actualité bi mm. actualité bi nag bokk na ci ginnaaw bi nga xam ne Serigne Béthio dem na euh, gisatuñ ko suñu bët mu mel ne que coow li euh, kii xalifa kii xalifa yow nag moom surtout yow yow suñ Pape parce que bokk na si ñi nga xam si ni parce que jàpp naa nit bu fekkee ne sa kilifa fonk nga ko muy dund booy la nit jàpp naa ne bu fi jógee da ko war a gën a jàpp waaye waroo waroo waroo roccee koy daw mu mel ne que yow bokkoon nga si ñi nga xam ne si sëñ Béthio daf leen a joxoon ki nga xam si moom mooy soxna Aida Diallo. Mhm. waaw question bu am solo la question bu am solo la ndax wax dëgg yàlla xëy na sax bari na ci ñoo xam ne ñi ànd ak moom ma leen di siyaare ah, sëñ Béthio moo leen boole woon ak moom wax dëgg yàlla bari na ci waaye man man sëñ Béthio mosuma booleek moom man moom moo ma def jëwriñ moo ma gis ma ne ci cant gi. di way mu def ma jëwriñ te nag man ku ma woo ci liggéeyu Serigne Touba woo naar ci goxum soow mànd koog moom ndax xam naa ni lu ko waay jox mu jox ko Serigne Béthio man xam naa ko bu wér a wér a ñun nangu ànd ak moom ngir bëgg lu neex Serigne Béthio waaye am na ñu ko Serigne Béthio boole loon bari nanu yow ci nga bokk waaw man li ma lay waxe wér mën na koo seetaan man moom moo ma def jëwriñ sëñ Béthio mosuma wax ni boole naa la ak moom. moom moo la moom moo moo la xoolal boppam tànn la jëwriñ maag samay ñoox ñeneen nawle waykat jaruma leen di tudd. Mm-hmm. moo ma def jëwriñ. Mm-hmm. man nangu ko ngir bëgg a liggéeyal sëriñ bi. Mm-hmm. man nangu ko lool bëggoon ko lool ne ci. waaye ku sëriñ Béthio jël boole la kook moom it ngir ñu ànd ak moom liggéeyal ko ñëw ci moom la. sëriñ Béthio ku mu booleeg soxna si ngir ngeen ànd liggéey liggéeyal ko ñëw ci moom. Mm-hmm. ndax li ma wax leer na. Mm-hmm. ku ko booleel. Mm-hmm. ngir ñu ànd liggéeyal ko. ndax sëñ Béthio ci liggéey bi sëriñ tubaar rek la newoon. newoon ci daray bakkan. wax nga ko bi sëriñ Béthio làqoo nag ma dem ci sëñ Saal nee nga sax mu daw dem ci sëñ <laughs> ah, noonu lañ ko mën a waxee. daw ma damaa dem fi ma war a dem. man. Mhm. damaa war dem fi ma war a dem te jàppoon it ñëpp danañ ma fa fekk ndax ku ne xam na ni yoori mu di doxe ku fi jóge ku fi bàyyi sab liggéey jóge fi ci saayir sab taaw a fi ne ab taaw bu fi bàyyam jógee taaw baa fi toog loolu laa xam mu ma jubali fa toog jàpp ni sax ba léegi maa ngi leen di xaar ñépp danañ ma fa fekk ah est-ce que nekkul ni ñu ko toppee comme ni nga ko waxee ndigal lañ ko toppee te ndigal liñ ko toppee loolu luñ gëm la ñoom waaw dëgg la xam nga. ndigal dafa fort pap mën naa mën naa ko teg ci ñaari point rek. Ah. pour leeral lii ngay wax. Ah. ñi ko topp ndigal leen ko teg dëgg la. Mhm. waaye ki leen booleeg moom ci ndigal dafay nekkatul ci saayir ba mën a mën a tëbaat benn bis ni digalaatuma leen ko ndax lu ne mën naa am di digal naa leen waaye digalaat naa leen mën naa te sëñ Béthio ci sëñ Tuubaa rek la dox te ñoom ñoo la gën a xam ni sëñ Béthio bu ko sëñ taxaa diggalee mu def ko ñoom xam nañ ko kenn ñemewut cee waat kaamil ñu tegal la kaamil nga dóor sa loxo ni sëñ Béthio bu ko sëñ Muntaxa diggalee day bañ hmm. tuub naa ci wax ji sëñ Béthio ci murit la nu mas a yar ci murit hmm. Hmm. non murit gi moom murit murit gi moom murit gi muy nettali naan sëriñ Saliou mës na koo wax ni ki fi nekkal sëriñ tubaa saa bu la diggalee na xam ni sëriñ tubaa la ko diggal na nga ko def hmm. kon ñoom wir na leen ni bu leen siñ bu ko siñ siñ Muntaxa bu diggalee siñ beccu ñu def ko hmm. man loolu laa xam rek hmm. man xam naa ni man siñ Muntaxa lu mu waxoon sëriñ beccu def ko ndax sëriñ Tuubaa siñ beccu sëriñ ne ñoom sëñ Béthio nekkatu fi comme sëñ Saal mooy taaw mooy moo war a nekk xalifa ñu topp ko est-ce que nekku foofu la waroon a yem waaw waaw xam nga coow ñun indiwuñ ko man indiwuma coow coow li sëñ Saal indiwu ko danga ngaa mës a dégg mu wax ah Mathiat. yow kay laay laaj. sëñ sëñ Saal mës ngaa dégg mu wax laa wax ndax. déet yow laay laaj yow laay laaj. dama laa laaj ndax yow sëñ Saal mës nga ko dégg. non man laa invité Pape invité ma yow laay laaj. kon ma leeral la ni coow jógewul ci sëñ Saal jógewul ci ñun Mathiat. Hmm. sëñ Saal indiwul coow indiwunu coow ñun mosoo maa dégg may wax waxi coow. Hmm. ñun bu sa sañoon coow du am ndax njabootu sëñ Béthio benn lañu. Hmm. ñun ñëpp ay taalibe xoolee Mm-hmm. man ni ma bëggee sëñ Béthio cofeel gi jóge ci siñ Béthio sama diggante moom mooy rogalaat ci ñoom mm-hmm. yéenewu ma ci kenn lu dul jàmm mm-hmm. waaye boo nee coow li ndax jar na ko mooy coow li li ko waral ngay xool rek waaye coow li sëñ Saal waralu ko ñun waralu ko kon question bi du ñun coow li li ko waral yow xam nga ko Sénégal xam nañ ko non man xaw ma ko moom <laughs> <laughs> jaru ko woon. <laughs> non man xaw ma waaw jaru ko moom coow li jaru ko parce que yaay xalifa ak doo xalifa ndigal lañ la toppee tëpp ñu ndigal jàpp naa ne pomme de terre ma gën a pataas daal ko moom. nga ni a gën a pataas. jàpp ah. naa ne nekk am nga droit. Ah, waaw waaye ñun ñëpp ay murit lañ te danoo mm-hmm. tegu ci yoonu murit. Mm-hmm. Mm-hmm. bu dee murit nga. murit ndigal ci lay tënku. ma caat. yoon wi du caaxaan yoonu ndigal la ndigal a téye yoon wi. li waral coow li mooy ndigal rek. ndigal la ko waral. mu mel ne mu mel ne yow ba pare yow nan ngay jógee ci nit ki biir euh, ren gis nañ ci màggal gi jaanatu mm. nga nga nekk ci tant ki nga xam si moom mooy Serigne Saliou Gueule Tapée ba mu neex la nga bokk cantaa ko ne waykat yi nga xam ne mm. dañoo toog ba si yàgg ñu dem it demaat fa li nga xam ne moom mooy moom mooy ngaa bu fekk soxna Aida da nga maa laaj wala da nga déet damaa damaa damaa forti ba béy dégg na bokk nga si cantaa ko nii nga xam ne si nii ñëw nañ ci Serigne Saliou suuru suuru màggal nañ fële ci soxna Aida ngaabu ndeysaan waaw ñoom di buñ la déggee sax dinañ xam ne wax dëgg yàlla loolu amul mënul nekk sax man taalibe laa bopp man sëriñ tubaa rek a tax may ànd ak nit sëñ Saal mii sëriñ tubaa rek a tax ma ànd ak moom sincèrement ñëw ma fu ngir dara dama koy wax jëluma ci seere nit sëriñ tubaa laa ciy jël seere man sëriñ tubaa laa ànd ak sëriñ tubaa moo ma fa bàyyi ndax damaa xam ne sëñ Béthio mbirum mii ci mbirum sëriñ tubaa rek la ko teg ci sëriñ tubaa rek la ne ba fii toll fii te sëriñ Saali wone ko say mbir daal lëkkaloo mbirum Serigne Touba fekk mbirum Serigne Touba ngi dem say mbir di dem kon ñun ci Serigne Touba rek la ñu ne moom laa ànd ak Serigne Sall dama ko kooj man bougé wu ma jannatu màggal hmm. man ci wattu sëñ Sall laa ne ba ah, màggal gi jeex boo seetloo sax bi may interroger fajar la yow jot nga maa jël sax xanaa. mais da ngaa dem jël si waat da ngaa dem dikkaat da ngaa dem dikkaat. non déedéet. <laughs> da ngaa dem dikkaat. loolu ñoom boo leen boo parce que man moom xam naa si waykat yu bëri yoo xam si nii ñëw nañ gis naa leen jàntu te ànd ko gisaat naa leen fa xam ne moom mooy moom mooy nga am soxnaay. non yow gis mais dégg naa dem nga dégg naa dem nga waaw da koy dégg rek waaye doo gis wax dëgg yàlla maa ngi woon ci Serigne Sall takk ma fa jógee laa dem ñibbi waaw waaw te waaw méttiwul daal loolu sax waaye man fii laa ne rek maa ngi fii waaw loolu moom garaawut sax ku mu neex mhm. nga jóge nga toog fii xëy na dem mhm. waaw ndax wax boo jógee fii dem ci ay taalibe sëñ Béthio ngay fekki mhm. waaye wax dëgg yàlla man bougé wu ma man maa ngi woon ci sëñ saal mu jeex tàkk ma dem tëddi waaw ma leen di fàttali ba léegi yéen a ngi ànd ak seen émission keppaar waa Kër Nabi te dalal ki nga xam si mooy Papa Gueye Miradi ma leen di wax ne man ngeen a continuer ngeen abonné seen seen YouTube SBT Media point com mais man ngeen ànd ñun ci Facebook Instagram ak li nga xam mooy Twitter man ngeen a télécharger suñu application Play Store SBT Media point com mais suñ pap mu mel ni que li ñu may si waxtu day bëgg jeex bokk na ci fan yi ay wax yoo xam ne mi ngi génn am am lenn ci taalibe yi xam ne day ñëw Sëñ Saal ñu ngi doog a doon ngi doog a cant gi ak yu mel noonu léegi loolu day la dafa mel ni dafa mel ni su ma déggee ñooñu seen wax yi day mel ni euh, kon bi fi seex bi nekkee ak taali bi amut ak murit amut cant gi amut. Mm. waaw xam nga loolu lu gàtt rek laa ci tontu lu gàtt loolu ñi koy wax danoo xamul dara rek walla ñu gëmul woon sëñ Béthio rek man sëñ Béthio laa gëm wax dëgg yàlla man mosuma bougé ci moom laa ne mosuma xam beneen keppaar man sëñ Béthio rek laa xam kon suñu doon am lu ñuy xam ci moom man mën naa bokk ci ñi war a xam ci moom. waaye li nu tënk mooy li Serigne saali ne ko li ma def ci yow ku dul Serigne ku dul yàlla sama borom xamu ko kon ñuy wax ci ñoo ñëpp sax nañ xamul dara rek Serigne Béthio da doon borom jagle maa ngi la koy wax sànq ni Serigne Mountakha mi ngi koy wax Serigne saal ni ko Serigne Béthio day boroom jagle waaye yéen na ngeen tënk ci yoon wii waaw junj ko la mu ko wax moom xam na ko moom sëñ saal bu baax a baax a baax a baax xëy na nag ak murit yëf daa yaatu daa bari te yaatu. te sëñ Saal ndeysaan mu ci def lu rafet lu bare bare bari lu rafet waaw mu koy def ba ñëpp apprécier ko ñi nga xam ne xamuñu ni sëñ Béthio doon doxee waaye sëñ Béthio dañ ko mbaa yàlla ak jagle laa am fu mu yoon la yaa ngi may dégg Matia. Mm-hmm. fu mu jaar yoon la. Mm-hmm. rawatina nag lu rafet rek la mës a bëgg nag. ndax mm-hmm. daana wax naan ku la dàq rafetal moo la dàq sant. waaw ku sañul la mu sañoon nag ah waaw bu la neexee doxe waaw loolu la rek. waaye ñiy wax loolu dañoo xamul rek dañuy ay gone te xamuñu hmm. waaye bu nu xamoon dañ naan jërëjëf sëñ Béthio sëñ saal yàlla na nga fi yàgg te tey doxal muy rafet hmm. day doxal rek muy est-ce que nekkul ne comme niñ gisee suñ saal mu dal euh, ak yooyu noonu parce que suñ ko xamoon xam ko ci xorom si euh, ci neex gi fu mu toog wax dëgg yàlla nit ñi dañuy yëg maanaam baas bi kenn daawul nelaw te ren bokk na si di tëdd ci suuf di nelaw ak yooyu noonu saal ak yooyu parce xumbaay bi ak yooyu noonu moom moom wax nii rek kenn ku nekk sa mbir sa mission Sëñ Saal dafa yor mission di ko doxal est yaa ngi may dégg. Sëñ Saal triché li may wax rek dañu hmm. tricher. Hmm. mission la yor di ko doxal. Hmm. ñu koy ñaanal nag yàlla wéral ko. taxawal ko. ba fa mu yéenee yi yi fi jëm fa. Serigne Touba yeggale ko fa. waaye Serigne Béthio moom Serigne Béthio la.